sufle waat na combat bi jàppante nañu Mame Balla 2 l'enfant de Jolof Mame Balla 2 l'enfant de Jolof jàpp ndengeñ jàpp ndengeñ ba kan ndeysaan ndeysaan jàppante nañu ba tey ñu ngi ci saaku yi ñu ngi ci saaku yi Mame Balla 2 l'enfant de Jolof Mame Balla 2 da koy buux waaye l'enfant de Jolof bañ na génn nañu saako yi arbitre bi arrêté na bare duñu woowaat na leen bilaay ndeysaan dëgg la yaay ndikku cuun arbitre bi sifflé na combat bi Mame Balla lan ngay wax saako yi bëreel arbitre bi xam na li muy arbitre ñoom ñaar sëgg nañu dañu sonn ndax dañu bëri combat bu metti combat bu yàgg jàppante nañu moo tax saa bu arbitre sifflé ñu jàppante ku ne ne ngeen sa morom ndax dañu sonn dañuy noppalu. ndeysaan waaw waa dégg laa andi ko cuun. jàppante nañu ñoom ñaar. ba na nekk jël na micro am dem mais nañu xool fu wane ni mu jékki bëtam rek. la fan de Jolof. waaw suñu càmmoñ. ma mbàll de sunu ndey jël lamb ji laay jël ba mu jeex. ndeysaan. waa ndeysaan. ñoom ñaar alpha gis nga ni ñu jàppante ku ci nekk di déglu sa morom parce que ndengeñ bee tax. ñaari xale Ambala da koo ndengeñ. l'enfant de Jolof ndengeñ. da ngaa sonn. te ndengeñ day tëj bëre. safut safut xorom safut suukar de. mars la. journée jigéen la tey. l'enfant de Jolof. Mamballa 2. 8 nday xale yi pour combat bi yàgg na Mamballa de mi ngi door ay hypercule ci suuf fi mu koy dóor foofu am na ci boo xamante ni bu dalee tombeek muy nooyi rek mën na koo atu ba mu yàgg ndeysaan ba ñaar ñoom ñaar ba ñu ngi ci digg géew bi bi amateur yi kontaan nañu xanaa ba la mbëre ba suñu batterie fay booy yàggee arbitre bi day arrêté combat bi parce que ñoom ñaar bëre wuñu l'enfant de Jolof da koy buux ngir mu génn ndax lu avertissement yi di gën a bari rek mu koy gën a arrangé buux na ko laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah waaye Mame Balla numéro 2 l'enfant de Jolof da ko doon bëgg a buux. Oh, ngir avertissement waaye gis nga ban mu rëy. bi ko Mame Balla dee bot xoolal xale yi xale yi ànd ak ñoom dund ñu ndeysaan lamba ngi noonu. laay laay la laa Mame Balla numéro 2. xale boobu moo nekk oh, écurie Papa Diop Boston. Euh, nekk écurie ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi leen di fay grand. lan j'espère que après di nga wàcc parce que gars yi namm nañ sa njuk. waaw namm nañ ko maa leen raw mais lépp mun na nekk daal. mais waruñ la waral euh, boobu ba léegi combat bi yéex. ah waaw mais est-ce que du ci adversaire yi. seen nekkul yaay taamu. non taamu wuñ leen mu jaar yoon rek. mais noo gisee Bébé Saloum Franc loo si wax en tant qu'amateur. di wax ne lamb ju neex la doon. na ci gaa yi def ndànk rek. Bébé na la la am ci lamb. waaw mun na suul boppam xeex. na non man sama bopp. gannaaw parcelle jege na waa jege na lool mooy loolu noonu. waaw mais ñoom ñaar xalaatoo ñoom ñaar ku ci am ndam nga laaj ko. mun na ne. yaa mun na ne yaa. su bëgg ok kontaan nañ jaajëf. Baba Ndiaye ñu ngi lay nuyu. baax a baax. lu war a sa teewaay moo ma invité Jamaïcain ma ñëw ci làmb ji. vraiment si ñaari champion yi. di ñaan yàlla sama borom làmb ji àgg si jàmm ak salaam. que le meilleur gagne. dafa am ñëw te ni nga ni macha allah da nga ñëw ak forme quoi mais lu tax wàccee bëggal say fans gars yi na mën nañ loolu liggéey rek yàlla baax na quoi liggéey rek moo wóor yàlla baax na liggéey rek mais noo gisee lamb ji en tant que amateur Bébé Saloum Franc waaw ñoom ñaar ay champion quoi vraiment Franc waaw daf nay preuve am Bébé Saloum daf nay preuve am quoi mais que le meilleur gagne rek ku ñu daan xanaa war nga xamay sans am ndam ndam bi gënu Sénégal ñoom ñaar ñëpp ay doomu Sénégal lañ quoi mais yooyu noonu non yàlla nañu si waaw sant yàlla suñu borom rek dañu wax ne lamba ji fo agréé kese la waaw nit ñee ko yóbbu niveau boo xamante ne mooy loolu moo tax toolu gars yi jàppeetu ko foofu mais ba tey ba ka a lamba jeex lamba fo kese la quoi vraiment nañ ko jàppee fo agréé rek ñu bëri ñoo bokk ñëpp tuuru yàlla merci beaucoup grand salaamaaleykum papa ñu ngi lay nuyu maa lay fay euh, euh, bu la ginnaaw bu ñu nuyoo ba pare nan nga gisee lamb tey ji ah lamb bi dal na xel ndax boo xoolee lu mat ñaari weer ñu ngi fiy tëgg mais làmb yi melul nii kon tey buñ ñu ñëwee fekk làmb ji mel nii sant yàlla lay doon ak ñu xam ni fii ñu ko defal fii la ak aussi ñu moytu violence bi ak aussi mbëri fair play ndax vraiment stade bi nii mu mel rafet na lool te ñëpp wuy si nañ loolu nag dafa war a am continuité combat yi nga xamante ni mooy ñëw ba gën a fees nii waaw. jërë jëf mbokk yi tey bu ngeen gisee lii ngeen xam ne ñu ngi ci arène nationale ni ma leen ko daan waxee bu ñu taxawee pël bu rafet nag tey le 8 mars te ñun jigéen ñi dañ leen a bëgg ñooy suñuy yaay ñooy suñuy soxna ñooy suñuy sœur par tey pël tey nuy naa la en tant que jigéen tey lan ngay lan ngay wax. mbay maa ngi lay fay di nuyu képp ku ñuy seetaan rek macha allah en tant que jigéen lu ma yëg comme lu jigéen ñëpp di yëg rek 8 mars moom ku ne xam na ne jigéen ñi lañ ko jagleel. macha allah. nga nekk ci làmb ji en tant que jigéen ndax yomb na. mbay comme li ma lay wax à chaque fois nee naa la àdduna dara yombul lekk sax dafa métti dara yombul dara ci àdduna parce que boo bëggee lu yomb moom da ngay tëdd sa kër di nelaw di jóg ah abu ah, dara yomb da ngay goolu rek ba keroog yàlla di la li nga xamante ne loolu nga bëgg bien vrai que sa lépp mënut a sotti mais ngay taaba taaba di ñafe yaa ma gën a xam mais man nag en dehors làmb bi. damay business. damay jaay sama jaay waaw damay commerce. damay business. damay dem Gàmbi. Ah. waaw dem jënd ji ay dara ay vax ñëw di ko jaay des fois am naa fa poulailler sama seex bi laa ko jox ak sama yaay ñoo si nekk ak yeneen mais du lépp lañ mën a wax. ndaanaan la ndaanaan la. jigéen ku mën góor la dafa a xëy. jàmbaar la wàcc. wala fu ne nga gis ko muy dang tawat amul amul du question du question jigéen bu mun góor xam nga lan la su nekkee ne da nekk ci famille ñu yaakaar la sa yaay yaakaar te bëggoo mu ñaan bëggoo mu yelwaan waaw kon faa nga góorgóorlu rek nga ñafe nga mun ko jox xam nga tukki dafa métti merci beaucoup kontaan naa ci yow jógee kaw la pël bu rafet a ngi noonu pël bu rafet a ngi noonu ndaanaan la bu ngeen gisee ci ci kaay waagaan na ko ah, Bébé Saloum door na ko Franc takk na ko ah, weñ na ko Bébé Saloum Franc bañ mbot mbot da koy war ndomba daan da ah, ko daan ko daan ko Franc daan na Bébé Saloum Franc daan na Bébé Saloum Franc daan na Bébé